jërë ngeen jëf fii ñu tollu tembe campagne électorale bi bu doon ngoonuk lamb la ñu ne dingot na l'observateur nañu juróomi fan moo des ci campagne bi juróomi candidat yi ci soobu di xëccoo bopp réewum Sénégal ku ci nekk ci ñoom yaa ngi wane sa bopp ci mobilisation bil journal bi candidat Benno Bokk Yaakaar mu di Macky Sall def na mobilisation bu amul fenn ca Kayar ak ca Tëngéej Idrissa Seck wane lu rëy ca Touba ak ca Daaru Muxti Macky Sall ca meetingam ba mu doon amal ca fa waxee ne dafay gagner élection yi ci premier tour bi loolee dara professeur Issa Sall yéenekaay bi nañu ab karawaan la amaloon ca Touba ca Mbàkke ak ca Sadio nee na bu faloo a ma nga woon ca sa Risatol jaar na cëb dëkkam mu di Ndar ñu màggal ko fa sargal ko fa jox ko fa cër ba mu yayoo mu ànd ak askanu Ndar wa wane ne foofee la dëkk La Tribune nañu ñoom juróomi candidat yi xëccoo réewum Sénégal ku ci nekk ci ñoom am nga confiance bu mat sëkk ci sa bopp Idrissa Seck def na mobilisation bu rëy ca Touba bañ a koy jàppal tànk ca dëkk ba samp ko moom Idrissa ne mooy doon président professeur Issa Sall ne amul sikki sàkk ci ne dafay falu doon président de la république bu Sénégal ci premier touru élection yi Macky Sall ne élection yooyee kenn mënu ko ko tee gagné Sud Quotidien nañu 96 heures ñeenti fan moo leen dese ngir ñoom candidat yi ñu jekk jekk-jekkal waajal seen bopp Alaaji Mali Gakou bu coalition Idy 2019 nañu ci Vox Populi seen candidat mu di Idrissa Seck mooy gagné élection yi ci premier wax ne Idrissa Seck day gagné yi ci premier tour bi tour bu elektoral campagne électorale bi las yéen a kaay nee nañu ci la fitna ji jugaat ci campagne bi li koy firndeel yéen bi nañu moo di karawaanu Ousmane Sonko bi ñu songu ci ay relaawo bu dul garde corpsam yi taxaw riposte ñàkkante ko ñi leen songu kon tey jii kenn waxatu ko ca Touba garde corps yu Mame Khary Mbacké yi foncé ci kaw convoi bu Idrissa Seck ba mu demee ca Touba démb ci Ndakaaru it am na benn bu Benno Bokk yakar bu ñu saax ci Tamba ak la fa xewoon l'observateur ne enquête baa ngay wéy te sori na juge d'instruction bu tribunalub Tamba inculpé na fukki élément ak ñeent yu pur ñetti ca ñoom tuumay faat bakkan la leen di toppee mu di Moustapha Ndiaye Ousmane Sidibé ak Mouhamadou Lamine Sène moom Mouhamadou Lamine Sène ak Ousmane Sidibé l'observateur nee nañu ñoo feeñal Moustapha Ndiaye ñoo ni juge bi Moustapha Ndiaye moo rey Ibrahima Diop Fatoumata Dewo Cissé dib doxkatu yónneent ca présidence de la République maanaam chargé bi nee nañu ab sëfëram ñu naan ko Abdoulaye Bara Bangoura moom it ma nga ca loxoy yoon muy def lu ñu ko santul les éco nañu gaa yi pur ya nekkoon ca loxo yoon fukk ak ñeent ci ñoom yóbbu nañ leen ca kaso ba ñett ña faat bakkanu doomu aadama lañ leen di toppee am na fukk ak ñaar ci ñoom ñoo xam ne bàyyi nañu leen ñu dem chauffeur bi doon dawal wata bi fiiroon Seex Touré les éco nañu suba ci la ñu koy atte ca flagrant délit homicide involontaire mu di faat bakkan ci loo tayul tuuma yooyee la ñu koy toppee anki dine kay moom it xëy xibaar bi bind ci xëta mu njëkk ne fukki membre ak ñeent yu pur yóbbu nañ leen ca kaso ba am na ci fukk ak ñaar ci ñoom yu ñu relâché bàyyi leen Abdoulaye wadd bàyyiwul teggiwul tànkam le quotidien nañu nganam ga woon ca Conakry ak la mu demoon seeti Alpha Condé ñu jàppoon ne njiit réewum Guinée Conakry di Alpha Condé dana wax ak Abdoulaye Wade ba li mu ŋànk mu yàbbi ko demewul noone la Alpha Condé doon jéem mu di wax ak Abdoulaye Wade mbir ya sottiwul góor gi tey la gën a taxaw ci salfaañe élection yi sabotage pacifique nag nee na moom la woote jóge na Conakry si na Sénégal démb tey jii ci lay door tournée nationale ba mu doon wax suur su a nañu Abdoulaye Wade ak waa parti démocratique Sénégal ñoo ngi door seenub campagne ngir jaxase réew mi loolee waral journal Source A bind ci xëtam mu njëkk début d'un bordel